su nataal tey di honorable député Aïda Gaye femme développement responsable politique APR waaw bu nu bëggoon xam Aïda Gaye fu mu fekk baax. fii ci dëkk bii nag xur wii rek man jumaa ji moo ma fekk de fekk jumaa ji fekk si ma ko fi de pare jumaa ji ñi nga xam ne jumaa ji dafa pare ñu daw ñëw bokk ma ci de man jumaa ji moo ma fekk man fii laa dëkk ci xur wi à 6 kilomètres 7 kilomètres de Touba. ginnaaw loolu kan mooy sa wasila. taalibi Serigne Fall waaw taalibi Serigne Abdou Fatah Falilou muy sama baay di sama nijaay di sama xarit. bu ñu dellu si waatee say premier pas fan ak fan nga jaax ay dëgg fu ma tàmbalee xanaa jaay crème glace ak jus kon laa tàmbalee après mujj gi may jaay géej. honorable député Aïda Gaye ci nguuru président Abdoulaye wadd bi mu jeexee dafa mel na ni da ngaa dellu si sa lan la xamee woon maanaam mooy jënd ak jaay. di jaay samay ginaar di jaay jën ak lépp. am nag benn réseau bu mag boo xam ne le réseau des femmes d'actrices de développement ñu ngi fii ñu def formation yëpp muy 1600 femmes yoo xam ne yëpp formé nañ leen ñeen ñi ñu ngi ci céréale local bi ñenn ñi ngi ci teinture bi ñenn ñi ngi ñaw ñenn ñi ngi def eau de javel ñenn ñi ngi def saabu. ginnaaw bi nga fi nekkee député loolu mën a wax si ay boobu sa taxawaay si mbir mu ni mel ak noo def ba nekk ko. waa député gi nag moom dama yàgg ak la président Wade wax dëgg yàlla député gi moom. ab Ablaye Wade laa ci gërëm ndax bañ bañ ma defee list national njëkk maa def vingt huit vingt yóbbu waat ma trent deuxième daf ma delloo delloosiwaat vingt euh, vingt huitième gi ma nekk ba ma ci laa jàll nekk député. lan moo la gën a marqué si parti démocratique sénégalais bi nga nekkoon jiite woon jigéen ña. non PDS li ma ci marqué bari na parce que PDS dama ci amoon ay moyen yi te man dama bëgg dimbalee te dama ci amoon ay moyens yu ma daan dimbalee waaw. amoon ci baat. sa relation ak président Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade sama papa sama xarit la daf ma defoon doomam Abdoulaye daf ma defoon doomam kenn ku ne xam ne ne man am na ci ñu bari ñoo xam ne ñi ku ci soxla Abdoulaye Wade ci man nga daan jaar te boo jaaree ci Abdoulaye Wade boo jaaree ci man yàlla dina ma suturaal ba dana egg. après ñëw nga ci APR dem nga ci ñaari élection ñàkk ko lan moo la indi ci APR. APR moom li ma fi indi moom accident la rek. lan moo la gën a neex wala gën laa naqari ci parti bii di APR bi nga fi ñëwee. non dundaguma fi dara sax luy pire rek luy neex moom vraiment dundaguma ko fi ndax yàggaguma fi ba fiy dund lu neex ak lu naqari moom yàgguma fi. ñoo ngi jëm nag ci élection locale bu nu génnee ci mbas mi ñu ngi ko jàppoon sax mois de mars deux mille vingt et un élection mel la moo ci sa taxawaay. président du conseil départemental. boo ci dem ko ci fas àndal. buñ bu bu affaire présenté wala dinaa xam ki ma mën a àndal. waaye nag mel na ni fañ bii nu jëm soxal na la loolu di wàllu sensibilisation coronavirus honorable Aïda Gaye lu muy dénk population bi. nañ leen góorgóorlu daal te xam ne feebar ku la leen sangul sa taar la bëgg parce que feebar moom baaxul ba pare ñu bàyyi stigmatisation bi ñuy stigmatiser feebar bi ah feebar bi du feebaru gàcce feebar la bu yàlla indi koom feebar yëpp te feebar yi kat am na yu mu tane ndaxte am na ci fi ñoo xam ne ñii sax. deux jours wala trois jours ñangay ngay dem di defi jalis bu ñu deful jalis maar dem si kon xam nga ne am feebar bi am na lu mu tane restez chez vous nous restons chez nous. su ko defee après. mu jeex.